Son corps lui a parlé. son corps lui a parlé. Non, son corps lui a parlé avant ça. Il faut nous apprenions à mais nous, comment war Sénégal. bi content. président super en on est content on est content. mais mais mais ça man man dama bëgg dem ñu euh, añ tout ça parce ah, que yaa ngi koy gis yow xoolal kii bi il faut qu'on se repose. il faut qu'on se repose. ay ay

<laughs> Mais en fait, tu sais c'est quoi euh, Les patriotes, ils sont invincibles. Les patriotes, ils tiennent debout. Les patriotes, ils sont forts. Rien ne vient à bout des patriotes. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein?

bon salaamaaleykum mbokku Sénégal ñu ngi leen ñu ngi leen di gërëm di leen euh, gërëm euh, ci àndandoo di gàtt seen i réaction di leen dalal ñu si jàmm di yàlla jàmm bu bëri. émission la émission bu bëree bëri. ndax euh, amaana lu yàgg a téye la. yaa ngi ko dégg ak yàgg rek tey wax dëgg yàlla ñu taxawee bi ñoom euh, xool photo xale yi xool seen way bëgg na ko yëgaat émission boobu la ñu ñëw waaye nag euh, ñu ngi dalal ñëpp ñu ngi am très bonne forme di waaj a nekk suñu monsieur bu ànd ak Kouthia xam nga Sénégal xam nañ monsieur bu ànd ak waaye daal seen xel ñu ngi si jàmm bu baax a baax a baax bu bëree bëri ñu a jaar bëri na ñu koy téye bu ñëwee ba fii nag kilifa yi yëpp daje am na fu bëri fu mu ñu yóbbu. partagé leen bi ñaan yàlla daal xale yi fi jógee yal na yàlla xaaral àjjana. amiin te nii doon mujjanteel lu mel nii fii ci biir Sénégal. amiin ñu leen gërëm di leen sant di leen invité nag ci suñu añ bi. donc la famille. waaw. la eh. famille donc nekk leen kon nekk leen je, je vais te voir. Je